mais gars est-ce que xam ngeen ballon d'or réveille des polémiques. ah bon Colin Yakar yaakaar mu jël ko. yow koo ah waxal kay ban doomu Adam moo sañ a taxaw si kanamu est-ce instant bi ne na ballon d'or. mais si mais non Messi def na nga ni saison mais bul faites en Ligue des champions Man, da ko transformé en champignon. pakate ko ba mu nice <laughs> ne ko demal nga toog. en plus Van Dijk à part Karaw lan la ëppalee Mané ci saison bi. moo a jaaxal. CR7 moom daf cee raxasu ba set. te lu si gën a garaaw nekkul Mané mooy laaj ballon d'or de. Mm. ballon d'or yi moo ne jox leen ma Mané. mais loolu bu mu la bett. Mm. saison bii daal Mané était au top. oui mais kenn joxu ko bees mais bi baa bu ko joxul ballon d'or naa leen fëgg punch kon Mané moo tooñ boppam hmm. nan ngay naanee top di xaar best récompensé la yow koo yab ah. best du trophée ah ok the best mais nag mën nañu ko bañ a jox ballon d'or de hmm. parce que gars yi dafa mel il d'or mais nañu xam ne keneen ku ñu ko jox ku dul Mané nekkutul ballon d'or de mais ballon d'or même pendant l'hiver Mané était chaud à Liverpool en parlant de poule sax moom nekkul match de poule rek lay toj en Ligue des Champions en plus ñu dem CAN ay star yu mel ne Mo Salah di toppaan Sadio di faj suñuy aajo ba final donc rendez-vous lundi Mané Ballon d'or. merci yéen a ma gën a xam.